gannaaw lakk gu métti gi nga xamee ne amoon na ci marché Ocass bi ñenn ci ay kilifa ba tey ñoo ngi wéy di yebal seen délégation ngir masawu commerçant yi nga xamee ne ñoo ne ci marché Ocass bi looloo waral tamit sëñ Ablaye Dia mi jiite Sénico moom it fay yebal ab délégation bu am solo ngir masawu commerçant yi nga xamee ne ñoo lekk ci marché Ocass waaye yëkkati ci enveloppe bu toll nag ci ñaar fukki millions ngir jébbal ko commerçant yi nga xamee ne ñoo ne ci marché Ocass bi soxna Anta Dia moo jiite délégation boobu Serigne Fallou Galassi la yëkkati ci seen i kàddu. Serigne Ablaye nee na keroog bi mu déggee dogal bi wàcc ci ay bokki jullitam wàcc ci ay bokki taalibeem la daldi woon fanaanoo yéene joo xam ne yéene ju sell la façon ko yéene jëme si ci yéen waaye ginnaaw bi mu xam ne mbir bu amee danga naan tekk déglu say kilifa waaye bi mu dégloo dégg kàddu Serigne Mouhamadul Mountakha ak délégation bi mu fi yónni ak somme bi mu leen jox nee na xelam daf na yar ci roy kilifaam te nit lum sañadi sañadi suñ borom dogal na ci moom moo war a roy kilifaam nee na gan kilifaam lay roy mooy yaakaari tayam ak ëllëg di maam Cheikh kero bi nga xam ne peste bi ñëw na ci réew mi Sëriñ Tuubaa daf ko déglu na ko seex loo xalaat ci njaboot gi nee na ci la commandé woon batob ceeb ci 4000 tonnes wax ne réewum Sénégal ñi fiy dund Sëriñ Tuubaa leen moom te buñ xiifee maa leen war a dundal nee na loolee nag la bokk la royo woon ci boroom gaawaan wax ne njabootu Sëriñ Tuubaa doomi Sénégal di jullit fu am nattu dale ci moom sëñ Ablaye nee na jàpp naa ne natt boobee mën mii la yàlla jox ma war koo saafara keroog la fanaanoon ne su ma mënoon na tabaxaat marché bi topp ña fa lakkale ma leen ku nekk ma xam la mu danaa ko dugle joxaat leen ko ndax xam naa ne lii ñuy liggéey bu noppee njariñul lislaam rek lay doon njariñul Sénégal lay doon waaye nee na loolu moo tax nag tekki ji mu defoon du woon tekki dara lu weesu yéen a juree rek la ak ju sell moo tax mu yëkkati somb toll ci ñaar fukki million def ko ab set teg ko ci loxol soxna Maam Anta Dia mii di magam ñu bokk lépp na ko soo demee joxal ma ko waa marché bi ne leen su ma mënoon a topp cantine par cantine danaa ko jël kenn ku ne la nga yàqule ma seet nam toll ma jox la ko ndax wóor na ma ne ñi la ñuy liggéey njëriñul réewum Sénégal rek lay doon waaye njëriñul lislaam lay doon waaye rawatina njëriñul Tuubaa rek lay doon as nee na njañ nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen masawu di leen yëgal ne moom day lii mu def lii daa mënta ñàkk rek waaye na fa bëgg ne ngeen xam ne moom moom yéen yéen ci dëkk bi doomi dëkk bi la bàyyam a ngi fii fii la jàngi liggéey fii la xamee commerce fii la amee tiraanga lu mu amit dëkk bi la ko yéene lu dëkk bi ñàkk moo ko ñàkk lu dëkk bi am moo ko am guddi ga nga xamee ne yëg na ne lii am na ci Touba dafa jàpp ne alalam moom moo lakk waaye seen alal lëkkul ndax ñenn ñii mooy seen mag ñenn ñi mooy seen bàyyi ci xale yi kon nag nee nañ yéen ñàkku leen moom njañ Fall moo ñàkk mi ngi ñaan lii ngeen xam ne sunu borom teg na leen ko mu di nattu te ñu jàpp ne ba àdduna sosoo ba tey dëkk boo fi gis mu naat wala barab boo fi gis mu naat sunu borom dagoo njëkk a lakk ak sawara ba mu jeex tàkk mu soog faa indi teraanga soog faa indi naataange ba ci Tuubaa gii mu ne yaakaar naa marché bi ku fàttaliku yéen ñëpp fàttaliku ngeen mën a lakk fi ay yooni yoon waaye fii may waxee ak yéen fu ci gën a lakk ba xam te yaa fi gën naat dëkk yi ngeen bàyyi ko di seen kër dëkki bàyyi buñ ma saane dëkk sàngam lakk na dëkk sàngam lakk na balaa weer waa dellu si mu naat naat lool dëkk yi lakkan yépp def nañ koy tabax ak i étage ak i terrasse kon njeñ nee mu ngi ñaan loolee nga xam ne natt bu suñu borom daan teg ñooñee tiraanga ji ca tokk ak yéene ja ak naataange ja yàlla na tegu jël seen lakk gi yàlla ko sa borom def muy naataange def ko natt muy boo xam ne si lépp lu aju ci seenu yaram wala seenu njaboot muy lool yàlla na ko sa waram yóbbaale. ñun marché ambulant yi nag euh, suñu xel dal bu baax a baax ndax gis nañ bi nga xam ne natt ñëw na dal suñu kaw ñu gëm ko gëm yàlla lool tamit te doyloo kàddu sëriñ bi gis nañ tamit taalibe yi nga xam ne ay jëwriñ lañ te féete ñu mat gis nañ taxawaay biñ ci taxaw ku ci nekk yëkkati la nga am. Euh, yéene ci sa xol ne soo sañoon taxawaay bu ci war yaa koy def waaye yéene jooju tamit egsi na ci ñun ndax wax ji rek bu amoon rek mu ca dara tamit ñun suñu xol sedd na ca loolu kon rawatina ku ci nekk yëkkati sa sebu vingt millions indi ko ci marché bi dimbalee ko néew doole yi nga xam ne ay marchands ambulants lañ ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. dafa toll ni lii nga xamante ni bii dal na ci dëkk bi boo ko seetee ci kaw meer la dal ndax dëkk bu ne la fa di marché lépp diggante tëj ga ak tijji ga diggante doxal ga maire yi ñoo ko yor kon fii nga xam ne bi yàlla dogal na fi dogal bii dogal bii dafa mel ni ci kër maire ci boppam la dogal bi daal kon képp koo nga xamante ni bi yaa ngi jóg di ñëw soo ñëwee war nga fee fekk maire yi dafa toll ni tey jii dañoo woote woote bu yaatu ci njàng mi ci dëkk bi ministre beeg ñoom àndal ñëpp yennee fi ay délégation ña nga maire yi man mii maa doon jiite réunion booba ci biir réunion booba dama maire nii da ngay suspendre bi dem marché ndax woote nañ fa ci am na kilifa yu fay ñëw loolu moo waral nii nga xamante ni bii naaje nañ koo ñëw noo leen ciy jéggulu yéen ñëpp ci turu ndax moo fi war na jëkk ku ñëw moom nga fi war a fekk kuy dem moom nga fi war a bàyyi lii nag ñu ngi leen ci massa wooti ndax ñëpp ci teg seen bët du lu nuy laam-laamee du lu nuy werante lu nit teg ay bëtam la waaye day noonu xamante bii ca suñu boroom la jóge Touba boo fi xasee nekk lu dal ci sa kaw rek xamal ni suñu coobare suñu borom la te coobare suñu borom nag jaam bi da koy nangu. ba tey jii Serigne Ablaye Dia yónnee fi moom itam ak sëriñ Ndiagne Fall ngir xam ni kat lii dal Touba ñoom la dal ndax Touba képp koo xam ne yaa ngi wuyoo Serigne ci waa Touba yow la dal loolu la jàppe seen bopp wane ni kat li fi yàqu ñoom la yàqul moo tax ñu am xolu biir maa ngir ànd ak ñun ci tiis wi ngir feeñal seen yéene ci yëf yi ngir mu woyof ñun kon nag waa marché Ocass yëpp muy ndaw di góor di jigéen muy ñi nga xam ne ñooy sinistré lakkale ak ñi nga xamante ni mooy marché ambalama ñun ñëpp marché nañ amee leen ak cant ak di ñaan Serigne Touba mi nga xam ni moo tax ñu jëf mën na mu jëf ci ba làq ko fu yëgul di jaajëfal mboolem marché mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi te lii yëpp ñu jàpp ko àndandoo benn nekk euh, boole suñu benn boole suñu bopp nekk benn bu dara xewee ñun ñëpp ñu àndandoo ñu teewe ko lii wax di yàlla ñoo ngi ñaanal suñu bopp subhanahu wa taala mu waaye nag ñoo ngi sant waa marché bi yëpp ndax lii ba mu dalee ba léegi kenn ku ne bàyyi nga sayte ànd ko ak waa ñi nga xam ne ñoom la dal seen kaw ndax ab jullit loolu rek la maral morom saa su amee aw naqar wala diis mu ànd ko moom ba jeex ba tax na cant mu tawee su cant kon ñoo ngi sant di ko indi di ko dugal ci marché bi di nga xamante ni moom la yónni muy soxna maa Anta Jami mu ànd ak euh, xaritam di soxna Xadisi la mu nekk ci marché bi ak ñun nekk ñu bokk lekk lépp loolu ñu koy bu baax a rafet bu baax it sëñ Njëñ Fall moom itam ki xam ne yónni na fi mooy doom rakkam mooy doom soxna Ami Fall mu ànd ak soxna Fat Fall mu ànd ak Serigne Cheikh Sylla mi nga xam ne mooy doom sunu maga nekk ci commune rurale bi ànd ak Serigne As Jaxate kon li ñëw ci marché bi ñoom ñoom ci mën a ñëw ñoo bokk lépp ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy ñoom daanaka kon ñoom daanaka li ñëwal seen bopp man bu la neexoon mën nañoo toog fan toog wax la ñuy wax lépp te ñun duñ ci jël kàddu ndax luñ def loolu ñun lañ ko defal amuñu ñaar duñu kenn ñun ñëpp ñoo bokk luñ luñ bokk luñ bañ kon nag ñoo leen sant ci baax ci jotaay bi ak teewaay bi ngir wane ni lii dañ ko def ngir ànd jàppalante ba lépp mu woyof mu nekkoon nag ndaje boo xam si ne kilifa yi bari jotoon nañ fa teew yëkkati fa ay kaddu waaye kaddu yooyu tamit dara waralu ko lu dul jàppale commerçant yi nga xam si ne ñoo lakkale foofee waaye jox leen tamit loo xam si ne waaye jox leen dimbal yoo xam si ne dinañ ko yittewoo ñoom ñi nga xam si ne dañoo lakkale woon